rahmatulah taalaa wa barakaatu. asalaamualeykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen émission Kouthia Show ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag euh, waxtu bi ñu wax ak yéen ji nga xam ne nag mooy vendredi le 13 mars 2015. ñu fas yéene jàkkaarloo leen ci programme boo xam ne macha allah ñu bëri nag dañoo interpellé semaine bi yëpp naan ñu waamee Kouthia. lan moo xew ba abbé Jean gisutuñ ko boobu dañu nekkoon nag ci wàccaay te xam ngeen ne nag tamit euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci réalisation bi liggéey bi dafay bëri ba nga xam ne ñoom seen bopp nag dañuy bëgg lépp lu defar ba mu baax normal fan yi boo seetloo ci télévision bi gis ngeen nag lu leen yéem ci plateau bi des fois plateau bi rond des plateau bi ovale yooyu yëpp nag ay technique yoo xam ne dañu nekk ci formation moo tax nag ñi nga xam ne ñoo chargé woon nag euh, liggéey bu réy boobu ñoom jubalaat jaare ko ci yoon mbokk yi dina ñëw ci Abidjan li gën a yaatu ci Abidjan dinañ ko ci def waaye tamit buñ ci jógee dinañ ñëw ci ki nga xam ne mooy président bu Mauritanie barke Demba Yaya woo woote na jàmm ci diggante Ablaye Wade ak ki nga xam ne mooy Macky Sall président Abdoul Aziz bi nga xam ne mu nekk ci Mauritanie moom tamit nee na wax dëgg yàlla liy taal Sénégal moo a taal Mauritanie nañu fexe ba jàmm am ci ñaari diggante président yooyu xam ne nag mooy Ablaye Wade ak ki nga xam ne mooy Macky Sall moom président Mauritanie dox na ci tànku jàmm te mu ngi koy bëgg buñ ci jógee nag dinañ ñëw ci koo xam ne expert am xam-xam dafa màcc ci li nga xam ne moom mooy mbirum bayu ceeb ak bayu ñam maanaam li saf gémmin tubaab li muy saf ak gémmin nit ku ñuul li muy saf du benn ndax tubaab ci boppam ak nit ku ñuul boo leen xoolee seen différence si diggante bi mooy taxamtiku ndax xam ngeen ne tubaab ci boppam am na loo xam ne xamu ko te nit ku ñuul xam na ko li nit ku ñuul xam tubaab ko li tubaab xam li ñu xamu ko loolu dinañ ko ñëw gën a indi mu a li nga xam ne mooy ceebu waalo tey defee ko ci biir présidence Macky Sall woo képp koo xam ne chauffeur nga secrétaire nga koo xam ne tamit euh, femme de koo xam ne tamit yaa ngi def chargé de ñëpp nag ñu laa def ci bi ñu fas yéene ko loolu tey ko xoolee ba ci biir am na beneen boo xam ne surprise la mooy dina ñëw ci Karim Wade moom ci boppam tamit nan la dundee ci palais bi euh, ca prison ba yooyu yëpp daal bu ñu ko tënkee mooy doon suñu sommaire waaye mbokk yi nekk ci réalisation bi di ki nga xam ne moom mooy tonton Mag feggoo Pape Samba Thiam bi nga xam ne tamit moom tamit ñoom ñaar ñooy ànd di def liggéey bu rafet bii waaye seen wet ki nga xam ne mooy toog moo fa toog di ingénieur en son ma jàkkaarloog ñaari cameraman yi Aysatu ak ki nga xam ne moom mooy Tafa ñoom ñëpp nag ñu ngi teew waaye tamit Maodo mbay ne ci wet gi waaye li nga xam ne moom mooy supervision bi mu ngi nekk nag ci l'œil vigilant de Matar jaa bi nga xam ne nag moom ci boppam mooy xool ndax mbir ba jaar na yoon di nuyu tamit bu baax père Assane Ndong nga xam ne moo yor sécurité extérieure ak intérieur ci teewaay ki nga xam ne tamit moom mooy Kara sécurité nuyu nañu Ndiaye mi nga xam ne nag moo jiite ambiance ba foofu ca biir waaye di ki nga xam ne nag moom mooy tutu ak nga xam ne moom mooy dërëm di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne mooy Abdou Fall ak ki nga xam ne moom mooy Go ñoom ñaar na ñoo yor percussion yi nga xam ne ñoo yëngal jamono ci teewaayu ki nga xam ne tamit mooy Fatim Evans ak ñoo xam ne ay invité nañ tey pour seetaan si Kouthia ñu ngi ci am mbégte contentement nuyu nañ ki nga xam ne mooy tamit Jamil Ba chargé de mission protocole la moom ci boppam ci biir Kouthia Show ñu koy nuyu ak chargé de dédicace am na mbégte contentement maam Biram ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant mbokk bu ñu tënkee loolu yëpp xam ngeen ne kanam gi bu leeree tey maman Diallo mi nga xam ne balaa muy tàmbali bisimilah lay wax bu paree ne alhamdulilah rabbil alamin boole ci naan la ndax gaañu la ndax neex na la ndax ni ma ko defee nii na kon macha allah ñuy wax ne yaay booy yaayu maman que maman mu ngi liggéey te ful ak fayda la fi ne jot julli jot na gërëm di ko sant mbokk yi nag tey loolu mooy suñu programme li ñu def nag moom mooy gërëm ñëpp sant ñëpp di ñaanal ñëpp àjjuma ak jàmm boo xam ne kenn dala jàmm la di ci am mbégte ak contentement wuy leen ma ay eh booy lu leer laa leen wax ay surtout cameraman yaayam dama ko dénk maa ngi bàyyi ba kenn fii nekk ko di jéem a cokkaas wala dara bàyyi leen ko dañ ma ko dénk nag te yaayam nee na ma dénk naa la ko dénk bu leer amul ay lii amul bàyyi la xale bi mu liggéey normal macha allah mu ngi koy def normal ku ci nekk jigéen ñi nekk ci kër gi yëpp seen yaay nee na ma man dama leen ko dénk léegi ñoom ñëpp man maa leen di garder ku ci jàdd dinaa woo sa yaay <laughs> ko meer kii wàcc na ku ci yéex a ñibbi dinaa leen wax maman Diallo yaayam man la ko dénk Aïssatou yaayam man la ko dénk man ñi ñu bëri seen yaay dañ may wonaan ma dénk naa la seen doom parce que xam nañ ne man man <laughs> ute naa am na koo xam ne groupe et kaay ma jox la benn information groupe Kouthia Show am na ci benn ponkalu maamu labatkat <laughs> international koo xam ne xoolal en tout cas góor ñi man la euh, Njaay ngi ci Góofaal ngi ci Abdou ngi ci euh, euh, Jamil Ba ngi ci juróom kii nu mu tuddati waaye oration ngi ci mais wóor na yàlla yoon bi ci ñu ma lim ñii man maa ngi ci mais am na koo xam ne Njaay ngi ci am na koo xam ne ci góor ñi xaw ma ndax am na jabar li jëntuma damay bañ bu fekkee am na jabar jabaram naa ko ndax yow la mais daal góor la mais wóor na yàlla yonent bi du ponkalom labatkat international waa ji boo ko gisee nag xoolal waa ju yiw la nag xoolal waxam bëriwul eh tudd ma kenn de waxam bëriwul mais bi boo ko gisee ci télé bi da nga yaakaar ku yu la mais ponkalamu maamu labatkat international te waa soo ko ko foog eh man gënu ma sa bopp de mais waa ji ah, doo ko ko foog mais xoolal doxaankat international génnul nag ci Gofal génnul ci Abdou génnul ci man génnul ci Jamil Ba génnul ci Horacio génnul ci Ndiaye <laughs>